حميت من يصيمني من الدرر mbokku jullit yi mbokku talibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci ndigalu sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke xalif général des mourides yéen a fi yàgg lool te ànd ak wér ci kilifteefu sëriñ Abo Mbàkke xalifa sëriñ Falilu Mbàkke xadim rasul sëriñ Cheikh Jorel Mbàkke xalifa sëriñ Cheikh Coro Mbàkke ak mbooleem njabootug sëriñ Cheikh Coro ñoo am mbégte di wooteeti di yëgle ak di fàttali màggaluk Mbàkke Bari di bésu fàttaliku damuk Cheikhul yoonu géej amee woon ci atum jëy sasin 1313 dëppoon ak fan ci weeru août quinze ren ñu jàpp ko talaata fukki fan ci weeru août deux mille vingt et un ca Mbàkke Bari Jolof di ko yëgal mboolem jullit yi rawatina njabootug Serigne Touba gépp mboolem ñu ñu bokkal maam Maram njabootug maam Balla Aysa njabootug maam Mor Anta Sali Mbàkke Mbusoobe njabootug cheikh yu yoonu murit rawatina nag cheikh yi tarbiya ci Serigne Touba ca Mbàkke Bari di ci beral ab woote njabootug Serigne Cheikh Absa Mbàkke xalifa ba di Serigne Cheikh Mbàkke xombal di ko yëgal njiitu réew mi son excellence El Hadj Macky Sall gouverneur région bu Louga préfet bu Linguère sous préfet bu Sagata Jolof ministre Samba Ndiobène Ka ministre Ali Sali Diop Aly Ngouille Ndiaye maire bu Linguère maître Amadou Ka président conseil départemental bu Linguère Moussa Ndiaye maire commune bu Thiamène Pass Soxna Koumba Diaw maire bu commune Sagata Jolof mboolem maire yu département bu Linguère député Bayrouba Guissé Ndeye Fatou Guissé mboolem député yu département bu Linguère ak mboolem parti politique yi di pouvoir di opposition di ci woo mboolem kilifa diine yi ca tund wa rawatina nag Sene Niang njabootu El Hadj si Sy Mirina di ci woo mbooleem kuréel yi liggéeyal Serigne Touba ca Mbacke Bari ci njiital Serigne Cheikh Ndiaye di ci woo mbooleem dayre yi yëngu ci yoonu murit ak mbooloo mi liggéeyal Serigne Fallou Mbacke ci Ndakaaru ak li ko wër Serigne Mat Thian di seen jëwriñ bés bangoog fàttaliku ak màggal départ en exil Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ca Mbacke Bari Jolof vingt-et-unième édition programme bi bu nu xëyee njàngum alxuraan xasida ak i bende tàkkusaan conférence di waxtaan wu am solo ci ni Serigne Xadim daan tànne ay dëkk ngir yar ak tarbiya taalibe yi masalan Mbàkke Baar yi conférencier conférencier ba Sëriñ Gana Messere ak ay borom xam-xam yu mag yu ràññeeku ci yoonu murit dina nu fa amal itam ab exposition ca barab ba ku tedd ka taxawoon doon tàggatoo ak njaboot gi le 10 août 1895 la woon bés bangoog màggaluk Mbàkke Baar yi 21e édition talaata fukki fan ci weeru août 2021 Mbàkke Baar yi nag di ñetteel bi dëkk bu Sëriñ Tuubaa sanc ci coobereem di dëkk bu mu waajalee yoonu géej gi dëkk bu sunu borom maye Serigne Touba Cheikhul Khadim lépp lu na moon ci yoonu géej gi muy dëkkub nangub ñaan dëkku pajum aajo Serigne Cheikh Diorel Mbacke di xalifa ba ak mbooleem jabootuk Serigne Cheikh Thioro di ci woo mbooleem jullit yi mbooleem taalibe yi ci biir réew mi ak bitim réew rawatina nag